asalaamaaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. parce lu waral lii. ah parti yeneen parti yi de dañ doon ñamboo taayale te UDP dafa ngénte dañoo bloqué dëkk bi yëpp su neexee yenen padi ya yen padi pati ñoo doon padi pati bari nen gambia so na pa yenen padi ya ngey ñambo a fokk ñu nga faram fancel ñu yen padi ñoo doon ñambo wa pour yox la bu ndaw demba la am suñ président de bi dem dem dem fini am manka makunda am am mune dafa dem lif so da nga gis ne xagalum def dafa dem si si li bi niñ ko lay waxate luma mo fa am so si luma bi la dem pour gay téro ko si luma bi ah, kon kon yen wa UDP gom ngeen ne ah, am nañ président tedu ñun ah seetal rek ñun ñoy ñun ñun nekkun di silent majority de we are the majority élection yi ah, député yi nako na ko élection yi councilor mayoral bi wax nopi so who is the majority but even even though uh, when you come to the presidency nga xamne ñepp lool lañ dé yaakar ñepp lool lañ dé out hmm. ah gis na na UDP fail na 2021 dégal so waxé né UDP fail na 2021 am dina la jox ñaari exemple yi tax UDP mu fail ben bi eh, justice system bi judiciary bi because of doo mun a bind sa petition nga gis njublang beek njuuj njaaj yi happen si élection si nga compile sa document nga bind sa pétition nga jox ko di chief of staff chief of chief ah, naka lañ ko def chief justice bi ñëw mu ne moom am am am boo xamante ne nii si la sikkandeku teguwut si yoon because of at the end of the day am président bi ba si am bi bi gars yi doon hear bi président bi am lawyer mi ñëw neen teew so warut a wax ne justice system war wax ne président bañ ko waroon notify personally balaa pétition bi ah, dañ ne doomi réew yi seen kaddu bi moo jàlla mooy doomi réew yi dañ sànniwul UDP NPP leen sànni ku nga xam ne mooy président Adama Barrow so loolu moo tax pétition bi gars yi valé wuñ ko because ñu ne di public has already speak non non di majority of the Gambians UDP lañ sànnil ak parti yi nga xam ne dañ am agenda mooy yeneen opposition yu ndaw yi but soo ñëwee si NPP dama laa jox classical example a country like Gambia we are less than nga ne dañoo war nga register half of the population dañ am voters card nga ne yow roughly 900000 dañ register Senegal, pour jox la classical example 18 million ñoo nekk Senegal, 4 million xaw 6 million ñoo sànni that is 25% of the entire population soo demee Ghana 30 million nyatanya ñoo sànni 8 million that is 25% of the population soo demee America they are 360 million you are talking about 80 million ñoo sànni that is 25% of the of the population nga Gambia 2 million ñu ne 900000 dañ am voters card nga ñëw nga ñëw seet léegi am am jiboos am seen lii bu def nii census bu passé nii ñu ne Gambia we have 2.4 million Gambians léegi ñu ne di entire KM 30000 am am am Guinéen ñoo fi dëkka ñu ne Sénégalais we have 40000 ñoo fi dëkka pour woon la rek ne am dañ inflate even sun sun ID card yi sun passeport bi because of am 1996 bi yaay jam 94 bi yaay jamee coup d'état yee KMC rek was having 600000 Sénégalais léegi ñun ñu fan lañ dugga 2011. Senegalese nekon bir entire Gambia we are roughly 900,000. Poli they are more than 300,000. Demal demal ci guinéen ambassador bi. They have about 300,000 um, um, um, Guineans in this country. We have more than 900,000 Senegalese in this country. Legi pro la né dañ jël foreigner jox len sun ID card yi. Motax té ñu né Gambia we are 2.4 million. Ñu né am um, am um, foreigner yi fi nekk motun sax 300,000. So ñan ñan ñoo sandé carte gambeni gambeni lañ sanil karta bot bot bot bot bot bot ñi sanil npp karta ñoo xam nga ko moy moy moy no no ah eh, dama la jox digits yo xamne mënu kenn mënu ko wérante digits yi ma la jox Ken mënu ko wérante because of a population of 2 million less than 300000 nit ñoo wara sanil karta ñata votes la UDP am 230 xoma 240000 so suñ fekkene gambeni rek sanil karta adama baro du am sa 70000 votes te suñu passé lolu gay dañ né ha nga 2021 lu ñu defoon loolu lu 2026 do lañ gis dara. non ñun ñu né ñun ñu né am um, electoral reform parce que tay élection du jegeñ nga né salary. digna len salaire euh, salaire ba salaire attestation man Serekunda rek we have more than 4000 attestation alkali attestation yo nga juro sirio réew bi sa yaay juro fi sa papa juro fi nga ne sa yaay amul ID card sa papa amul ID card sa yaay amul birth certificate sa papa amul birth certificate nga dem ci alkali bi mu bindal attestation bo xamné amul garantie. élection bu passé nii xam nga ñaata attestation la la la la alkaale yi joxe four hundred and fifty thousand attestation country wide so ñun ñu ne electoral reform su dee ne Gambie nii seen ID card yi moo leen a sànni loo karta Adama Barrow balaa élection si di jegeñ dina commencé di jënda wëlis pour passe ba paak ba gaa sami loolu ma la ko wax loolu man maa la ko wax tabaski ah, gis nañ né councilor election bi ah, councilor election bi tabaski push and pull bi win naa winuma dem na koor ñew na way déggu déggatun dara gisantun dara wa xam nga am comme ni ma la ko waxé woon rek ci election présidentielle bi man suma boss is different man 48 lañ tontu 84 ñu jël sun documents yépp compile ko dem fi ñu dem ñu won ñu né am time bi ñu waroon a file suñ pétition bi dafa elapse bo dama la won rek dañ la won comme ñun justice system bi fi is li nekut about um, Tobaski or UDP at, at, at, at election council. This is about the integrity of IEC. Understand? But we have tangible evidence. Soon, soon um, station bu nekk ñu ngi fa amoon ñaari ñaari polling agent ku jóg dem semaine keneen ñoo toog ku bëggaat julli keneen ñoo toog pour bu am am lapses or or or loophole. Understand? So bi ñu dajalee suñu yëpp dem pour woon la rek ne justice system bi fi nekk am am am chief justice beeg justice system bi président bi lu mu loolu mooy am so boobu deliberate sa la té lér na nañ. so are you sure that UDP su ñëwé su nguur bi jël na place bi wala jël na togu bi justice bi dina dem fu mu wara démé wa wa because of justice bi fokk mu dem fu mu wara mom dem motax mom gis na importance justice moo tax am luwaayam bu es bu mu nekk di indi ni mu né légui xam nga three arms of government mo am um am am am di cabinet ak parliament. bi unité legislative judiciary and the and the and the and the am cabinet di legislature judiciary and the cabinet on nga bu nek da nga wara def sa liguey te benen du sonal moromam xam nga ñetti am si dañu wara liguey te ken du sonal arama wara xagalum def dafa ne legi justice system bi suñu drafté sen budget président bi moko wara approve so xam nga fofu def wana la nga nga aate ah, case bi la até sa sa sa sa sa budget bi du approve. Wah approuve. waaye ñi nyune, UDP when they come to government they are going to be crop astafurlah corrupt ah ah daaba mu ngi nii uy ma traine musuñoo gis fum mu jublange nit ñi ñom ñoo ñom ñoo bañ UDP because of majority bi ba paré UDP nekk na parti bo xamné ne amut halis opposition la té fuñ oté nit ñi dañoo gëna gis nañ fi parti bo xamné dafa joxé 200 dafa joxé muto du doy nit ñi duñ gëna mu gëné di joxé 200 pour nit ñi gëna UDP fi ñing ngi fi gisam ñoo fi indi seen bopa tay parti bi joxut kenn dalasi parti bi joxé muto nit ñi ñoo tal seen muto yi ñoo mobiliser seen bopa ñu gëna si so yenen yenen parti dañoo génnee dërëm joxé muto jox yay compagnie ñu toog a añ joxe two hundred taxut nit ñu génn